1 euh, million 000 ou 800 000 actuellement dañ ko a 3 millions francs CFA ñun avons fait 3 millions. 3 millions yi soo ko ci ben bi pertement général la en am bénéfice di nga fay chauffeur 350000 pertement pendant un mois et demi yow camions ya ngi fi plus de 100 camions ñi ngi fi stationné au niveau euh, de la direction régionale centre bu ben camion mënul dem douane bi dafa cher yokku nañ ko ñun nag vraiment dañoo jaxlé parce que gaay yi dañuy def ay prêt bancaire ci banque lañuy ligéyal crédit mutuel Sénégal ay ACEP euh, et consort la commerçant yi dal son nañ carrément douane bi dañ ko yok légui dañ ko yok noonu mais indi indiwuñu feuille communiquer indi wuñu benn avis commerçant yi ñëw taxaw fi ñi def nañ fi 15 jours ñi def nañ fi 1 mois et demi kenn mënul dem kenn mënul dik te bo génné bo génné fi so génné douane.

Nous allons dañuy ñaan appel au président de la république son excellence Macky Sall mu dimbal lañu li laay commerçant yi dem Gambie kaarang sonn nañ day gis benn benn maire boo xam ben benn kay la kaar Ndiaga Ndiaye yor ay quelques tissus euh, mi ngi fay deux cent mille dañ koy fay ak huit cent mille du jamais vu Nous allons dañuy lancer appel au président de la république son excellence Macky Sall mu dimbale ñu ak le nouveau directeur général des des douanes inspecteur Abdourahmane Dieye. man dama fi ñëw doon des douane ay bagages. tout temps dama fi ñëw di di jël ci bagage duggu frontière jël bagage du yobbu yobbu Sénégal mais damay ñëw euh tol na temps na daan na nax yenn saa yi la ngay ñëw ñu fayeeku lu jaadu mais bii dañu fayeeku loo xamante ni dafa jaaduwul parce que fekkee da nga demee Gambi da nga dem Gambi nga jënd wulul bi nga jëndee facture bi nga jëndee nga ñëw de douanement bi gën a seet facture bi loolu dafa loolu loolu tam aussi day métti si ñun loolu day gën a métti de douanement warut a gën a faire seer facture bi nga jëndee te ñu lu ñuy de douanier de douanement bi dafay gën a seer bi. mooy xool loo jëndee ba pare bala nga jëndee fële nga def sa lépp yëpp sa fay sa transport lépp ñëw ba fii loolu yëpp li nga def yëpp dédouanement bi ko seet loolu dafa métti ñun dañ bëgg eh, kuy président comme si mën a doon ku si mën a jàppale mu jàppale ñu si parce que man fii maa ngi daan fay ay 1 million 1 million 500 ñu ma ñëw ñu ne ma da ngay fay 5 millions 5 millions man oto laa yor camion laa yor na xaw ma ñun mooy suñu liggéey buñ ci amee luñ ci dimb luñ ci faraatu rek xeebuñu ko luñ ci am rek xeebuñu ko mais bu ñu si tegee loo xam ne dañoo pare dem liñ ci war a am ñu ñoom ñu jël ko ñun ñu gàddu si bor loolu laajtaa ñu dañuy dañuy bàyyi te ñun mënuñ ko bàyyi ndax moo suñu liggéey moo suñu liggéey dañ bëgg nag kuñ si jàppale bu xamante ni dana mën a oyof si ñun waaw loolu laa lañ bëgg bu mën a am incha allah. sama taxawaay xanaa yàgg fi lool mënumaa fay douane parce que bi ma chargé sama oto ba pare ñëw taxaw di fay douane dañ maa defal xaalis boo xam ne mënu ma koo fay xaalis ba mënu ma koo fay waaw toog naa fi am naa fi tey jii 10 jours dem naa fi Dakar woo nañ ma sama doom feebar sax ma dem am naa fa trois jours ñëwaat deux jours ñëwaat waaw maa ngi nii bëgg a fay te mënu maa fay parce que bu ma fayee perte ba pare vraiment sóoraale ma woon liñ ma ni moom laay fay ndax liñ ma liñ ma ni woon moom li ma waroon a fay man ba ñëw tegaat nañ ci deux fois waaw normalement loolu sax jarul wax waaw mais man bu ñu ma fayeeku woon sax lu jaadu loo xam ne man loo xam ne duma perte mais li ñu may fayeeku fi mu nekk ni su ma ko fayee damay perte waa loolu moo tax ma am fi 10 jours bu ngeen fi ñëwoon bërki dem ñëpp ngeen fiy fekk waaye ñëpp daw nañu wuti waa doole pour mën a fay fay perte moo fi am directeur nañu dimbali directeur u douane liggéey bi metti na trop ci ñun. leen yokk bi. yëguñu ko yëguñu ko woon man de yëguma ko woon. te sama morom yi ku ko ci yëgoon doo génn parce que dafa am yokk boo xam ne buñ ñëwee rek duwaañ yokkal ñu ko bu ñu jaayee dañuy perte mais ñun buñ ñu yokkalee tey jii weer wi beneen weer ñu yokkalaat ñu beneen weer ñu yokkalaat ñun daal loolu rek lañu nekkee lii daal kenn xamul vraiment lan la sonn nañu daal sonn nañu daal nañ ñu dimbali daal président Macky Sall dimbali ñu ngir yàlla ak yonent ba ñun ñëpp yow lañu ñu jàpp jàppale ñu yaag sa Marème Faye Sall sa soxna Wow, ngeen wax ak directeur douane mu dimbali ñu ngir yàlla ak yonent ba waaw ñu mën fay mën a fay suñuy pré parce que fii nekk dinañu nangu suñuy kër suñuy kër rek lañ tayle di ak suñuy biisu moom lañ tayle bu ko fayul dañ koy nangu nañu dimbali